yëngootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina ñu jóg di way sang be safar terootina sunu deret yëngootina sunuy sidit yëngootina bu ñi jóg di way sang be loolu mooy ñun ay taalibe dunu sëriñ bi dunu maji sëriñ bi dunu doomi sëriñ bi ay taalibe lañu leen war mooy jëfe ndigal bàyyi tere ba pare sax ci ak tet sëriñ Saliou ndigal cuun bu nu woowee rekati ndigalam jox ñu wax ñu li mu bëgg ne daa bëgg ñu def ko sunu ay gor dara du ñu war lu jëfe ndigal man daalu bi ak sëriñ bi moom moom moom moom li ma moom sama gars yi sama jëmm bi nga sax bàyyi ko ba dara jeex na loolu loolu moom kenn waxatu waaw kenn waxatu li mu bëgg mooy ma dellu si lakk saa yi teg sama nit am ak ànd ak moom jàpp waxtu bu jot ci Mermoz noonee laa koy defaate te tàmbali naa ko bis bi tey ci magal li mu bëggul mu yore tubaab yeeg garab yi boobu nañ ko gis man li sëriñ bi bëgg laa bëgg lu mu bëggul koy ñaan mu yàgg fi ci ma gisati ci lu koy naqari lu may tere ci barke sëriñ Bamba tey ba amoon message boobu da ngay yeggee euh, mbokki taalibe yi rawatina ñi nga xam ay ndaw lañu di ay jantaakoon ak taalibe yi Seexul Xadim yëpp ak maam Cheikh Ibrahima Fall wala Sénégal lan lay doon. waaw li muy doon mooy ñu xam ne ak taalibe Serigne Abdou Lahad Mbacké daa wane yoon. mooy taalibe ak sëriñam dara doxul seen diggante lu ndigal kuy xaar ndigal rek da ngay mel ni ab néew munuy ab néew munuy sang sang wa du metti ba mu ne fii baa fii metti na baa fii wow day toog rek rek la ci suñu si mu sang ko la mas ta denc kon ñun li ñu war ñun taalibe mooy nañu xel dara mënu noo jariñ ci suñu diggante ak sëriñ dañoo jàpp ne mën nanoo jariñ ci suñu diggante ak sëriñ lu dul ndigal nax na la suñu bopp ndigal moo nuy jariñ tey moo nuy jariñ ëllëg moo nuy jariñ fii moo nuy jariñ fëjjëm kon maa ngi woowaat mbokki taalibe yi ci ñu bàyyi xel ci ne ab taalibe ndigal képp ko la digganteem ak ndigal rek la war a xaar digganteem ak sëriñam te mooy ànd ak bi ci màggal gi ànd ak sëriñ bi ci gàmm gi ànd ak sëriñ bi ci 17 avril waaye ànd baayam yi fi bàyyi te ci yoon woowu rek fas yéene ba keroog sunu ruu wi juuy baayam incha allah safar na ay sunu deret yëngooti na sunu sidit yëngooti na ñu jóg di way sang safar terootina sunu derot yëngootina sunuy sidit yëngootina bu ñi jóg di way sang be